firndeel li ñu doon wax mu mel ni dialogue bi waxtaan wi nga xam ni eh, njiitu réew mi eh, woote na ko ñu bari njortoon nañ ni eh, dina tas opposition bi. Euh, waaw. dafa tas opposition bi wala daf indi malentendu ci biir coalition Yewwi Askan Wi. wala ay appréciation yu bokkul la xam nga dialogue bi bi muy génn dafa fekk beneen beneen këf ku judd ko tudd F. 24 moom bu ma jaaxlee alamin laa koy laaj ndax moom mokkal na leen F24 <laughs> moom déjà mm-hmm. euh, kuréel gi joxe na appréciation ak ñaari couleur am nañu bokk F24 dañuy bokk ci dialogue bi mm-hmm. F24 en tant que tel du bokk ci dialogue bi bu ciy dëkk wala homme politique yi boobu boo bis boo maîtriser entre lire entre les lignes nga xam ne ñi ci sincère bariwuñu F24 dafa boole plus de cent këfin yu bokk ci kuréel gi am na association am na leader d'opinion am na parti dafa am ñu bokk ci biir ñuy bokk ci dialogue bi te këf ki ci boppam du bokk ci dialogue bi dialogue bi dialogue Macky la wala projet Barthélémy Diaz Barthélémy mi ci waxtaan ak Macky Sall informé ay leader am laataa muy génn ci presse bi et projet projet bu Barthélémy Diaz la pourtant Macky Sall moo ko annoncé est-ce que gis nga paramètres yi Macky Sall moo ko annoncé te boobu ëgseeguñu ci from bi ay photo génne photo yi indi buzz ba waaye yow yi ko loolu lépp boo ko dajalee seen calcul bopp la est-ce que loolu jotee na dara ak opposition bi dynamique bi nga xam ne moom la ñu jaayoon li ma doon li wax li may wax rek toujours baat bi laay dellu soit bi ñu jaayoon askan nga xam ne voté wuñu woon pour gëm benn leader dañu voté bu bëgg benn changement changement loolu moo tax d'ailleurs am na ñu bëri tey ñoo xamante ni bi ak lu mën di xew ak lu mën di xew mënuñoo fexe ba dominer ñi nekk ci nguur gi ci bokk ci élection parce que sénégalais yi dañu mën a folli mais mënuñu fal bépp président bu falu sax folli te ngay xalaat parce que am na yenn yenn yenn yenn yenn leader yoo xam boo ko amee sa sa kanam day def tiitaange ci yow parce que nga xam ne Sénégal dafa mën a folli mhm. te dafa am benn doon nañu ko wax fan yee passé calcul politique dilu euh, Idi Macky libéral ñu ko doon def ay calcul mhm. mais tey bu fekkoon toon Idriss Seck dafa des biir benn Bokk Yaakaar mhm. par exemple kan mooy nekk leader buy jàkkaarloo leader potentiel buy jàkkaarloo ak makki sàll bu fekkee Macky dem na ci élection pour crédibiliser élection présidentielle yu Sénégal kan la kan la amul pratiquement Sonko éliminé nañu ko Khalifa Sall wóoragul. kan mooy nekk a Karim Wade wóoragul. Karim Wade wóoragul donc Idi mënta continuer benn bokk yaakaar. foog mu génn pour au moins crédibiliser candidature Macky Sall que Macky def na face ak benn leader bu mu defoon face. 2019 mhm. mhm. ku bokkoon ci élection. deux mille vingt sept. Mhm. surtout que mi ngi réclamé wu ba léegi ne moom mooy chef de l' opposition. gis nga politiciens yi ni ñuy mhm. ay ministre xëy bàyyi. bu waabale waale mboolem ministre député yi mu abaloon Macky Sall. Mhm. mos naa existe ci histoire Idrissa Seck ak Macky Sall. mosul am ñoom Pape Diouf ak gars yi dañoo mujjee des. yàlla politique calcul la du saaga. du émotion loolu mooy message bi may wax booy yi nga xam ni mooy nouvelle génération bi politique ci Facebook yi politique du saaga ay paramètre la gis nga nit mooy juum mais paramètre téléphone portable du juum paramètre ordinateur du juum paramètre caméra du juum noonu la politique mais dafa am ay schéma ay paramètres du saaga ndey du saaga kilifa nit ki fii ak ñu ngi continuer ci loolu ñu leen di tendre piège di leen kepp di leen kutt da duñ ci am balaa ngay jeexal Mansour dafa am benn laaj bu mu bëggoon jàll rek. ba mhm. jàll ba ma ko baale. Mhm. Euh, fan jële ñu wees ayu bés bële dafa am benn yéenikaay bu waxoon ne Macky Sall ak dialogue politique bi mu woote il réussit en quelque sorte à à diviser l'opposition du ñu ñëwaat encore une fois mhm. jox dëgg euh, analyse boobu nga xamante ni yéenikaay ñu ngi koy jox. comprendre ko maanaam euh, dialogue politique bi nga xamante ne Macky woote na ko. dafay xàjjale opposition bi en tant que tel. non mais Macky Macky Macky loolu président Macky Sall bu sañoon opposition bi muy jàkkaar lool du am doole bu sañoon euh, résistance bi muy am ci kanamam jamono yi mu nekk ci bopp nguur gi du am doole parce que loolu moo koy permettre mu dérouler ni mu ko neexee mais démocratie moo permettre Sénégalais bi mu radical mu doxale neneen c'est de bonne guerre comme ni ñuy xalaate nag pour teggee ko fi président Macky Sall dafa wax wax bu am solo bi muy dajeek Assane Gueye ci seen émission boobu daf ko ni le président de la République du Sénégal. Et je suis sénégalais, comme tout le monde. Je suis toujours le président de la République. Kon du ma nangu. man mi fal ba noppi ki faloogul ni ma wàcceel ma. ça pose problème. merci Mansour ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci